xam nga école euh, école privée Sénégal ci dëkk boo xamante ni bi dox na école privée dafa doon nekk échappatoire euh, et bu njëkk ñun loolu la ñu xamoon. Euh, maa ngi fàttaliku bi nga nekk bi ñu gën a nekk xale école yi nekkoon Mbuur am na école bu wax promotion. Mhm. daanaka échappatoire la woon ak école bi wax Saint-Esprit dañ la wax école yu baax ci njàng lañu mais kenn daaw foon yóbbu sa élève Lulu ni dafa lajj lajjaat lajjaat ba ñu nar koo école publique Té lolu mo jaadu ci am réew mu normal mhm. école privée dafa war a sauver ki nga xamni ni na ba nopi mais bu ñu demee ba mu nek mode tay ku sa doom jàngiwul école privée pour yow sa doom jàngul mhm. mooy wane ni école publique bi baaxul lolu nak responsabilité gouvernement la amna ben point bu am solo bu Moussa Diam wax muy da ngay jang bu am sa diplôme ñu naan la école bi reconnaître ñu ko c'est pas vrai c'est pas vrai lolu nguur gi rek ñoy dajalé nguur gi fi nekkoon dajalé seeni ay katch <clears throat> pour sonal nit ñi parce que xeyne mom école bi bokkut ak ñom gëm gëm ci walu politique mais Khalifa, amul ben sénégalais bu ñu may taxawal fii ab école di jàngale ay nit te amul autorisation. Mm-hmm te bindo inspection informé ko yow mu Sall ak politiqueum liñu li ci sen euh, modernisation des daara yi ñu commencé won mhm. ci kanam touti doona dem ba ko ubbi daara te amo autorisation IA bu nekk sa carte ñu tej ko. parce que nenañu fu nga ubbi daara léegi kay wala de circulaire bi nga xam doonañ ko doonañ ko doxal ci dëkk bi. Mhm. da ngay bind sa iya sa non sa IDEN. inspection départementale. Mhm. koku répondre la nga wax ko yow ni ngay jàngalee euh, jox ko plan école ak fi situé ak yépp mu ñëw inspecté ko validé la nga bind procureur de la république procureur envoyé fa benn mission bu ñu xool en même temps bu noppee joxaat la rapport am moom nga soo ko rapport bi yóbbuwaat ko IDEN hum. ñooñu soo ko jëlaat ko IA IA soo yow sa implantation wu daara waxuma école de daara segam daara yi lañu demoon ci ben moment pour teg leen condition yoyu saka kon école fi kenn ubbiwu fi école té amoo autorisation mm-hmm. ñom ñooy suub rek loolu benn la benen bi ci dess libéraux yi li tax ñu bon dañuy fekk ku njàngam rewul ñu jox ko responsabilité ku am doctorat et ki njàngam soriwul daf koy permettre mu tok ci kanamu public bi di kàcc ci ay diplôme té bu ca noppee itam japp ni ku toogiwul fa mu togué yow jango c'est-à-dire gis nga gestion libérale mo bon ba nga xamante bi seen yoon ci qualification wala compétence wala capacité ñoom lépp dil la ak business. juñu na la sànq wax naa la sànq ni ñu falee ma buuba jaaj parce que xam nañu ni kii mun na lii. xam nañu ni mën na lii ñu ko confier te dina ko doxal te Sénégal li mu soxla mooy yàpp dootul nekk luxe. Mhm. agriculture dootul nek luxe. lanen ak lay mais khalifa yëpp dañ koy jàng yow yomi nek xalé mhm. man man gis na ben sénégalais bu am fi Dakar fi ñetti école ben bi santé dong lay jàngale. benn bi communication ak marketing dong lay jàngale bi ci agro alimentaire dong lay jàngale man amna chance visiter école yëpp man ak sama ben confrère bu tuddu Abdoulaye Mbaw mhm am nañu chance dem visite ci école yi nemmeeku leen mais bu ma nee dama ko dama damay inscrire damay jàng mun man ko bëgg jàng transformation parce que waa ji machine yi mu indi ak implanté ko ci école bi ci machine yi nga xam dañuy transformer dafa càkkri dafa soow ak ni ñuy wayalee soow ni ñuy def réformage ci soow ak machine yi mu implanté ma ni xale yi man conseil bi may jox étudiants yi man leen na ngeen fexe ba bu ku génn fii nii bu dem bu dem di uti liggéey yéen étudiants yi nek ci classe Ils dem len collaborer ak étudiants yi nek ci classe bi nek ci amphi bi nekk côté euh, foire parce que bu ñoom ñi dañu jàngale marketing ak communication yéen ngeen créer entreprise ci wàllu agroalimentaire mm-hmm. ñii defal leen communication donc tàmmal leen seen bopp di joxante loxo di collaborer parce que amul lenn lu dox lu kenn nit moo ko créer mm-hmm. en général foog nga am partenaire foog nga am ku le financer foog nga am ku la defal euh, plan bi et tant d'autres ba ci sax jigéen bi toog ci buntu këram teg Table, di les jaayal sa produit sax faire contribuer ci li nga xam la bonne marche de l'entreprise. Ah. donc je rentre loxo ku wax la ni. voilà qui <laughs> moom xam na école kii moom xam école mais <laughs> am di voilà t'as parfaitement raison <laughs> Mamadou Diaw. Mm-hmm. il a Mamadou Diaw effectivement bi jàngale communication marketing mu ngi nekk foire bi jangal santé mu ngi ci VDN bi xawa a ak euh, ah. bi alimentaire, mu ngi nek fi ñu école nga gis te Baye c'est un jeune sénégalais bu jàng ñew ñew di mom limu xam au lieu mu li li da Sénégal lu mu soxla rek ci ressources humaines. Mm-hmm. day fekk mu disponible am

ba nga xam ni li gis nga objectif IAM xam ñu nekkoon ay élèves IAM comme sama genre bi man nga xamante ni bi bëgg naa def diplomatie vraiment bëgg naa jàng diplomatie pour être un ambassadeur wala mu dugg corps diplomatique parce que doyal naa ci communication journalisme loolu moo doon am ci dund nit nga reconvertir def na ñun la ah am nañu benn filière bu jàng diplomatie pour ñaari at formation bi ñaari at loolu la ñetti at nga continuer di liggéey di jàngi man lolou maa ngi ko jëkk découvrir ci sama directeur Mamadou Ibrakan. était simple journaliste mais bu mu nekkee directeur RFM mu commencé am ay responsables dafa dem inscrire IAM di jàng pour nek, manager pour donc yu mel nonou école yi lolou la doon jëriñ mais tay buñu jëlé école privée def ko benn business ba nga xam l'école école publique bi dafa dee wet mhm. loolu politique libérale la te système bobu nonou système bobu

wala euh, vision mi yam dong ci euh, ñu génne ki am diplôme arabe ci tur bi mu nekk mais réalisation dong lay laaj parce que xam na ni ki am diplôme arabe ak ki am diplôme français ñoo bokk liñ jàng xëy na sax ki am diplôme arabe gën ko baax niveau mhm. làkk yi doon mën a wutale donc li yitteel président Bassirou Diomaye Faye mooy euh, réinsertion oui Moussa Thiam am na diplôme arabe dara du ko wutale ak am diplôme français donc Moussa li mu mën a liggéey loolu liggéey ci Sénégal foog mu dem liggéey mais amna diplôme bi mun ma def lu dul jàngale ji wala ma dem defi commerce ñu discriminer leen ci biir askan wi xaw stigmatisation lañ leen def ci biir askan yooyu dafay dakk te loolu mooy vision Bassirou Diomaye Faye donc foog ñu jàppale leen ci loolu ba ñu jël njàng mi privatiser ko comme ni ko Ablaye Wade ak Macky Sall defee woon ñoom daal seen nguur moom ñoom li ñu fi bàyyi ci mbalit kenn xamul nu mu toll parce que méthode boobu baaxul méthode boobu moom baaxul mhm. malheureusement léegi tubaab yi euh, même américain yi ñu ngi continuer di ubbi école Sénégal complexe yi mel man bon ku ko am jël certes xëy na sa doom da nga koy école ñu ni bon pour mu wax anglais wax nangam xale ak teflu euh, ilmu say an fi si xale ka nax suñ fi xajar c'est-à-dire que xale boo bëggee mu maîtriser ñe fukki làkk daf koy maîtriser parce que xale la boppam mel non donc da kii dama ko inscrire ci xawma benn école boo xam ne ñuy jàngale anglais arabe nangam complexe loo nit ñi ba nga xam ni yaw da ngay foog ni yow bu sa doom duggul ci bus bii dem yi sa jabar du la nopp parce que dafay wane sa limite ci wàllu am-am foofu ñu dugal Sénégal yi moo nekk benn turu gàcce boo xamante ni bi mhm. non libéraux yi daal bu ñu yàlla àtteeg ñoom du baax. alors tey njàng mënut a nekk luxe xalifa. Mhm. njàng dafa nekk benn ouverture boo xamante ni bi ku nekk war ngay jàng parce que njàng minal mahdi ilal lahdi la. yow da nga war a jàng man damaa war a continuer dem jàngi man damay continuer dem jàngi man toog na ak Moustapha yi ñuy wax ci benn ñuy waxtaan ci benn filière man ko Moustapha man ko monsieur le ministre yow sa école bii bokk na ci école yi gën a aay ci wàllu développement personnel mu ni ma waaw man ko mais ak benn méthode bi nga xamante mooy nit ki bu jógee daanu jógaat daanu warut tëdd dafa jógaat parce que bu ñeenteelu yoon bi foog mu taxaw daaw man ko waaw man ko man ko mais est-ce que mënuñu fexe ba ci développement personnel balaa ngay jóg di daanoo boo jóg am fu foo teg sa tànk ba doo daanoo comment mën ko parce que loolu mooy développement personnel bu l'islam on a longuement discuté ba mu ne ma est-ce que est-ce que duñu créer benn benn filière bu mel noonu gis nga vision moom hmm. automatiquement daf koy def benn benn benn benn benn matière bu ñu war a jàngale bu nit ki nekkatee pour ngay essayer di daanu di essayer waat di daanu jaay café perte jaayat kafe perte. Hmm. léegi du ma continuer bala ngay bala ngay tàngal kafe bala ngay jënd kafe pour tàngal ko rek wax nga am sa cible boo koy jaay ba noppi. donc loolu mooy mooy intelligence nit ki balaa mu xool ba xam moom intelligent na wala déet balaa mu dugg ci développement personnel mais fan la war a jaar est-ce que amul war a jiitu.

après F24 amna na leneen lu ñu créé waatoon beneen xeetu coalition bu dox ci bu doxoon ci diggante bi. FC 25. FC 25 beaucoup beaucoup bokkul bokkul ba tey. leneen ñu créé lu am ci diggante bi. fit voilà fit. voilà après création fit ñu échange ci lu yag yag yag yag lo xamante ni da nga xamni ki xam-xam dong moko xam-xam dong la naw Gira Guirassy Gira si bo bëggee mu yënd fi su ba ngoon ubbil buntu xam-xam. الله يلا خم نقول من بدي بين آية وخ قل هو الله أحد الله الصمد وقت المستدق من في يندو سبب بنقول ما تبين كده خم مثل الإدارة الوطنية من دمج أم خل مدل يا أم أنت جانعي بدك تغير بس كجوه نو نيكو كوكو من كوكو خم كو خم إدارة كوكو خم خم خم دعو دعو دعو موكو صار موكو يتل من كوكو خم غطوك أكمل يعني تغير توالو خم خم بعدين ده وقت أنت توالو أدنى والو سياسي ده بابي قاول لمولاي دون mais jox ko opportunité mu wax ci wàllu xam-xam <laughs> loolu Sénégal soxla moo système mu bi baye Moussa dafay changer école yi bu amul autorisation do taxaw mais dañu war fexé ba école publique bi li ñu koy doyee mu def ko ci biir peuple bu Sénégal voilà El Hadj Mansour yaa ngi si biir ay wax mu dem ba réew moo xam ne euh, jàng nekkatul loo xam ne nécessité la mais dafay nekk luxe am oto pareil am kër pareil lépp ñu def ko luxe mu dem ba tey dañuy priva privatiser li nga xam ni moom moo di euh, njàng bi la public bi dem ba mel na luy luy gasax tey sa doom su demul public su demee public danga naan nilaar lay nekk mais su demee privé nga am xel même téefu xale bi day nekk intelligent ndax tey loolu donte tey Moustapha Guèye moom dafa euh, moom mooy yor li nga xam ne moom di enseignement bi ndax dina def benn réforme boo xam ne xale bi dafay am benn atout bi nga xam ne dafay am contentement dem jàngi public ndax bi jàngi public day mel ni gàcce ci réewu Sénégal. xam nga ab dëkk moom. ba léegi nii mami gisagoo école boo xam ni daa vide. parce que même école publique yi. Mm-hmm. vidul de. li ñu naan ñëpp dañuy jàng dañuy jàng ji école privée taxul école publique vide de école boo fi dem la fa nekk xaju ca. Mm-hmm. excès ba moo xam nga lan mo tax euh, école privée yi am doole ci kaw école publique Moy école publique dañu dooleelul amuñu ay salle de classe. Ah, amuñu ay kat. c'est-à-dire école bi le nguuru gu al gu euh, libéraux yi yàq ni ku li ba léegi c'est-à-dire bu ñu waxee ni ku sa doom jàngiwul privé yi itam dafay mel ni yow gàcce la ci yow waxin la parce que egg guñu ci gis école publique vide de une école publique au contraire a fait des fa mais l'école publique mo amul ay salle de classe mo amul ay nga bien-être bi nga même élève bi daf kay cherché ta amuko même enseignant bi non la kay chercher tay enseignant bu salle de classe yatou am espace un tableau bu yatou nga normal de yok sa intelligence mhm. bi sa intelligence mais bu fekkente ni bi yow fi nga nekk yow jàngalekat bi téeméeri élèves ñoo nekk ci sa kanam kii xel bi neex na kii xel bi neexul kii day jooy kii dafa feebar yow doo mun sax distinguer élèves yi kii lan moo ko arrivé ak kii lan moo ko dal da ngay yàkkamti salle bi génn euh, loolu ci côté santé sax baaxul bien-être baaxul cest à boo ko xoolee da ngay xam ne ñi fi nekkoon dañoo saboté njàng mi ci façon boo xam ne école yi lu mu bëri bëri baax na na privé na nekk daara na nekk public na nekk lépp mais c'est-à-dire jàngukaay na am na nguur gi procédé ci construire ay classes nga xool. ak ay conditions. mais non, noonu conditions yi mi dépendre ci classe yi moom Aminata. Mm-hmm. njàng gis nga li ci ëpp solo condition jàngalekat bi yépp moy ne jàngalekat bi nekk nekkin bu sel nga xol seen ñaxtu yi ñaxtu sa bu fekkontoon tay seen nekkin sel na lolu lolu tout la ci wàllu considération boo xam ne dina dina leen permettre ñu wàññi sax yenn jàmbat yi mais jàngalekat boo koy wane ne yow boo koy wane ne yow amoo benn considération amoo benn fulla dañu lay jox benn salle de classe def ci téeméeri élèves te loo ci xamul gis nga dañuy wax euh, dañuy wax gendarme wala police nga xam ni sañu ñu wax sañu ñu am lu leen metti ñuy kaas mais noonu la mel ci njàng mi ah.

jàngalekat moo gën a nekk victime ci Sénégal alors loolu dara sabab ko lu dul nguur gu bon gu sàggane am njàng. ba ñu naan privé nangam école ñuy jàngale ci privé bi ñooy jàngale ci public bi. au contraire kaay mu wax la dañu jàngal sax Sénégal yi métier bu xaw a doy waa bu tudd xarnat hmm. ci enseignant da ngay jàngale fii jàngale fii jàngale fii du lu bon parce que nit ki sax am benn métier du lu bon mais du ñu concentré wu comme ni mu jaadoo. Hmm. Nous ñu seen feuille comme ni parce que salaire yi doyul privilège bi doyul condition bi ñuy doyul doyul salle de classe yi nekk xat xam nga xam nga yow nguur élèves parce que amuñu table banc. quelle honte.

jamono yi Mamadou Talla bi mu nekk ministre de nationale ba léegi ñu ngi ci ñu ngi won ci blouse yooyu def ci ay milliards ba léegi li ci sol ay blouse motuñu ñett yow réew mi li li fi affaire yàq xawma kañ lañu koy defaraat sur tous les plans nag. Mhm. yàq yëpp nag yàq gi ci gëna bon moy yàq moral et c'est très dommage. ñun de blouse ñun de blouse yi daan sol dañ ko daan dañ ko daan fay da ngay joxe xaalis. moy tax nga am blouse ñu jox ñu doon la jox blouse waaw.

donc inscription fël la jëm iden la dem iden lu mu ci def wala IA la dem IA lu mu ci def wala ministère la jëm xaalisu élève buy inscrire ci école publique xaalis ba fan la jëm mhm. loolu dafa am question ba dafa am ay leeraange yu ci am mhm. école publique ñu ni ku fay jàng da ngay def inscription léegi xaalis boobu fan la jëm ci école bi la yem ci iden ba lay dem ci IA ba lay dem ci ministère ba lay dem fan la jëm mhm xam nga bu école privée da ngay def inscription so da ngay fay par mois parce que ci la ñuy entreprise la ci la ñuy fay jàngalekat yi mais école publique fu xaalis bi jëm ministère de l'éducation ñu natal ko budget national non moo jël plus de 40 pour cent ci budget national. waaw léegi nag moom war nañ ko demander question ba xam li nga wax ni élage. Euh, lan moo tax lan moo tax moo tax cartographie abri provisoire Sénégal chaque année day gën a yokku. Mhm. chaque année day gën a yokku. <laughs> maa ngi lay nettali benn anecdote bu doy waar am na koo xamante euh, ci élection présidentielle yi dafa raatale dafa raatale di benn diiwaan ñi fa nekk ñëpp moom la voteel mu ngi ci opposition xam nga la am ci wàllu këyit. Mhm. élèves yi ñëw inscrire te fenn fu ñu ñu ni place CM bi kenn bu yàgg ñu miiré ko amul benn salle de classe ñi am entrant sixième yëpp war a def sixième cinquième jëm kaw ñu orienté leen fa kenn amul foo dugg toog jàng mu ñëw tabaxal leen ay salle de en tant que opérateur économique gratuitement mairie ba ñëw def récupération politique waaye nit ñi waa dëkk ba kooku yi def politique noonu am na fa benn nombre ci aw askan woo xamante ni bi biir na ma ni xamuñu ko waaye la mu fa def moo tax pour nit ñi dañoo xiif ku leen defal lu jaadu ku leen defal lu jaadu moo tax ma am yaakaar ci ni gouvernement bi dina xoole naneen dina doxale naneen léegi nag liggéey boobu nga xam ñoom xam nañu ko sumb nañu ko du ñu bàyyi benn yàqkat di ko yàq waaw voilà ba kenn di ko yàq voilà mu ngi noonu Baye Moussa ñu wax ci